suñu njiit yi amuñu fulla amuñu fayda si seen bopp loolu laa waxoon léegi le 19 le 19 mars ma defati beneen petite vidéo di alerter encore sénégalais yi leen dafa am benn piqûre bu nga xamante ni ne ñag yi euh, benn piqûre bu nga xamante ni ne tubaab yi ñu ngi koy préparer pour maanaam Euh, benn vaccin bu nga xamante ne tubaab yi ñu ngi koy préparé pour yóbbu ko Afrique essayer ko ci sunu doom yi ci ñun te bu ñu delluwaatee gannaaw le 31 janvier muy vidéo bi ma njëkk a def doon leen alerte ci affaire feebar bi waxoon naa leen ne leen ci biir wax ji waxoon naa leen ne leen tubaab saay bu defaree garabam ci fu mu koy essayer mi ngi koy essayer ci yaramu nit bu ñuul xam nga noonu laa leen ko waxee woon le 31 janvier. et kenn defagul video ci biir Sénégal ci 13 millions xaw ma 16 millions lañu pour wax si loolu yëpp alerte le 19 comme ni ma ko waxee mars ma defaat beneen vidéo di leen wax ñaq ñaq bi nga xamante ni ne moom la tubaab bi na a préparé pour ñëw ñaq ko suñu ay doom mais gars yi li ma métti mooy dama jël vidéo bi woo sama frère Assane Assane Diagne parce que lu bari su ma ko naree di def rek dama koy woo waxtaan ak waxtaan ceeg moom daal ma ne ko man de dama bëggoon a def benn vidéo alerte sénégalais yi ku bëgg a gëm-gëm ku bëggul bàyyi Assane ne ma waaw mais nag boo koy def bul wax Covid 19. parce que boo waxee Covid 19 dañuy tëj man sama page defoon naa beneen petite video di leen di leen di leen di leen di leen loolu di leen tontu mooy ñi may wax nag mooy ña nekk ca commentaire ya doon ma xas naan man am na sax ku ma wax ne élitire laa ndax mënuma Covid 19. te xamul ne sax dama ci am ku ma si waxal ba pare mais comme dama bañ ñu tëj paasu Assane Diagne bi ma ne ko waa baax na ma ne ko kon naa wax Covid 19 mu ne ma déedéet Covid 19 ak Covid 19 yëpp benn la yow waxal Covid 19 ma jël ko bind ko mi ngi ma teg fële depuis boobu léegi mi ngi ma teg fële fi ma ko bindee noonu te boo leen di seet ci vidéo ba su fekkee yéen a ngi seetlu. bi ma doon wax maa ngi doon def nii fee laa toogee woon doon wax maa ngi doon gestu di def nii pour maanaam mën a mën a lire Covid 19 bi parce que xam naa ne quand même bu ma jàngul tamit ba yeggee université xam naa ne Covid 19 xanaa loolu yomb na ci ku jàng ba dem troisième secondaire sama gars yi yéen ñu nekk ci commentaire ba di ma di ma dénigrer waaye loolu passé le 19 ñu teg ci tuuti euh, maanaam tubaab yi si boppam tubaab yi la ma waxoon. kon loolu moo am nespa ce wala man mu nga xamante nii ne jànguma du ma scientifique comme ni ko benn waay waxee. am na benn waa ji nekk ci ci kii bi am na benn waa ji nekk ci commentaire ba oh mais photo bi duma ko mën a gis am na daal ñu nekk ci ci ci commentaire ya dinaa ma naa tëj sama gémmiñ du ma scientifique nangam ak nangam ñu may dénigré di ma xas di ma wax lu nekk léegi ci jamono ci jamono bi ñu nekk nii tey la vendredi ñaata ñaata nit sénégalais yi muy sénégalais muy malien muy xeet yépp africain yépp fu mu nekk nii muy muy ñag yi ñu ngi génn di def vidéo di wax man la ma waxoon ci te man ma avertir leen yéen sénégalais yi ba pare ngeen bañ ngeen ne loolu munul nekk ngeen ne loolu tubaab du jël du jël nangam nangam te du yéen ko dégg ñaari vidéo tubaab yi toog ci seen télé am audace maanaam ñeme nit bu ñuul jàppeewuñ ñu dara comme la ma waxoon rek ñoom ñu toog yéen a ko seetaan télévision francais yi lañ ko wane tubaab yi toog ñeme lool nag nit bu ñuul lan la ñu wax journaliste tubaab bi yéen ñoo ñu doon ma dénigré journaliste bu tubaab bi waxul docteur bi ne ko comme Afrique damay jaar nag si digg bi comme Afrique ay cagaa fa nekk loolu la ko wax ay caga ñoo fa nekk sida ba mu nga fa maanaam feebar beeg du lu bari mu nga fa dégg ngeen français tubaab bee ko wax en direct ñépp nag di ko gis suñu su suñu suñu dirigeant yu ñàkk fayda yooyu may wax ñu toog ñoom ñépp ñu toog ci yéen loo leen mënti xam rek man xam ko wala yéen waa kay jërëjëf man ni may seetaane information yéen ngeen di ko seetaane na leen leer ne ñun lépp lu ñu mën a wax ci réseaux sociaux yi suñu dirigeants yi ñoo ñu ko gën a xam jàpp leen loolu mais ay nit ñu bon lañu ay nit ñu bon lañu tubaab bi moo toog ci télévision wu français yi mu ne kon suñun suñu réew yi ñun daal ay mala lañu daal parce que noonu la ko waxee parce que li mu wax noonu ay ñi essayé ay piqûre di ko yóbbu ci dëkku africain yi ñun suñu ay doom ñu ñu koy piqûre ñun loolu mooy ne ñun duñu ay nit ñu essayé ko ñun ci suñu ay doom suñu su su su su fekkee reyu leen ñu door ko yóbbu ah ñoom daal ñooy nit daal mais ñun daal ñun daal ay mala la ñu daal te du nii laa leen ko ko waxee woon ci ci ci vidéo ci ci vidéo ba ngeen xas ma fi dénigré ma di ma xas dina jànguma te pourtant scientifique yooyu nekk ci biir Sénégal ak scientifique africain yi est-ce que génn nañ leen pour pour pour pour kii leen parce que man dama am dama jànguma école ba yegg ba yegg université mais dama am damay toog xalaat. comme yàlla daf ma bind may science di xalaat nit laa benn tubaab yi yemuñu foofu de ñu defar seen beneen plateau gis ngeen ko du vidéo yi du man maa leen koy wax ñi man nag ñi may waxal mooy ñi nekkoon ci kii ba foofu di ma dénigré ñoom laay waxal man ñu yéen man yéen laay waxal tubaab yi defaat yeneen plateau toog fa am na benn xale bu jigéen xuma ko jigéen la xaw ma di filmer ñu ne nañu defar nañu defar garabu tooke yooyu doomu yóbbu ko Afrique ñu essayé ko foofu nañ ko essayé foofu parce que africains yi ñoom ay ñoom ay mala lañu ay sénégalais yi ay les négro la ma waxoon ñëw ba fu mu nekk nii yéen ñépp yéen a ciy topp di wax waxoon naa leen aussi ci vidéo ba ma ne leen li ñuy rey te gis naa ñuy live di ko wax gis nga li ñuy rey xam nga ci ñan lay jóge si ñun suñu dirigeant yi xam nga ci biir vidéo yi wax naa leen ne leen ñoom bu ñu ñëwee dangeen di demaat dellu ci vidéo yi ngeen déglu ngeen jël ci lu ci am solo bu leen jël ay Covid 19 ay ay juum juum di wax ay Covid ak ay nang loolu amul solo loolu amul solo parce que fii dof nekku fii man du ma seen dof lépp lu ma wax dama koo xam dama nekk borom xel Macky sàll mi jàng ba am xaw ma lan man gënuma muus boo leen ma joxoon Sénégal ngeen xam ne jox ngeen senegal ku am fulla ak fayda ci boppam man tubaab du ma yeb du ma jaay sama askan ndax. ndax ndax ay tubaab du ma ko def te pourtant sama jàngu sorewul sénégalais bàyyi leen di xeeb nit lii moo tax pour nga am borom xam-xam ci biir senegal Sénégal rek de ci Afrique ñu am fa borom xam-xam ndeysaan dina yéex parce que nit dina am lu muy bëgg a wax sax mu am lu muy yëg xëy na xëy na mu am wax ma na nag ne wàllu yu wala ngeen may sosal mais nit ki bu leen xeeb nit même kuy màndi di toog ci mbedd mi bu leen ko xeeb waaye sénégalais bàyyi leen di xeeb nit bàyyi leen di xeeb nit boo gisee nit ki jàpp ko comme sa bopp di nga gis nit ki di màndi di tux yàmba di def nangam fekk yàlla mu ngi ci moom wàlliwu la te xamuloo ko dee leen bàyyi borom grand bu yu ngande yi yi loolu dara loolu yére la bu ñu sol nit fii la ci biir xol foofu la ñuy utee foofu la nit ñi di utee bàyyi leen di juger nit li moom moo tax nit ki Afrique du ñu mën a am ay kàngam parce que nit dina mën a dina dem sax même bu jàngul école jàng-jàngu français boobu ngeen di wax mais yàlla am na lu mu ko may ci biiram mu dem bëgg a gis dara mais yéen yéen a yéen a xam yàlla fu mu nekk yàlla mi ngi fépp te ku ko neex nag lay jox xam-xamam ma xamal leen loolu de leen maandu léegi nag nit ki mun na dem yàlla xëy na mu am lu mu ko feeñu mu may ko ko mu génn bëgg leen ko wax ngeen faagaagal ko fekk yéen a ngi faagaagal yéen seen bopp déjà première vidéo bi le le 31 janvier bi ma waxee loolu loolu ma ne suñu dirigeant yi dañu ñàkk fayda am na ñu fa nekk di di kii mais suñu di man maa kon maa maa nekk si dëgg mais ñàkk fayda moo tax ba suñu dirigeant yi la ma waxoon ñàkk fayda boobu moo tax parce que feebar bi ku fa indi tubaab yee ko fa indi ñoo ko wax ñoom ñoo wax ne feebar bi tubaab yee ko fa indi yéen a ngi fàttali ko avion yi bi ñu doon wàcc ñu jël leen yóbbu leen Casamance kon kon ñoom dañ kon dañu loolu am fulla la mais loolu du am fulla loolu du am fulla xale yu góor suñu frère ya nekk ca ca Chine di jàng bi ñu waxee Macky Sall mu indi la lu mu wax déedéet mais ñu teg ci ñaari fan ñetti fan mu bàyyi tubaab yi dugg tubaab yi dugg dugal feebar bi kon man man maa am raison léegi nag yéen ñu nekkoon ci biir commentaire yi di ma di ma dénigré dama bëgg ngeen wàcc ci commentaire yi xam nga nit bu ñuul dafa rëy rawatina sénégalais du baalu mukk bu tooñee da ngeen di wàcc ci suuf jaajëfal ma ne soxna si li nga doon jànguloo de jànguloo bu am ay diplôme de mais li nga doon wax dëgg la parce que maa nekk ci dëgg ndam def naa fi benn petite vidéo fan yële passé di fecc ne man maa nekk si dëgg li ma doon wax yëpp ci yéen ñëpp ci topp te gis nga li ma leen di wax mooy gis nga bu ñu dof dofloo xam nga waxoon naa leen ne leen suñu dirigeant yi amuñu fula te li ma wax rek moo am gis nga bu ñu dof dof loo suñu dirigeant yooyu ñoo ñu ngeen di wax ay scientifique lañu dañuy complot ak tubaab yi ñu indi fa piqûre yi ñun lu ñuy rey du tubaab moo ñuy rey tubaab day plan rek tubaab day def ay plan om def yépp mais li ñuy rey mi ngi koy jaarale su ñun 22 président yéen a koy wax de yéen jàngkat yi yéen yéen a koy wax waxuma ko yéen a ne 22 président lu tubaab yi rey. yéen a koy wax man waxuma ko africain yi ki ci mujj ca caat bi mooy kan mooy xaddafi lan la xaddafi bëggoon xaddafi lu mu bëggoon mooy man du question de boobu man dama bëgg xaddafi sama xol sama computer bi su jugoon léegi wan leen ko écran wu xaddafi laa fa def parce que xaddafi man xooluma ndax naar la xaddafi buggul woon wax buggu woon sax ku koy wax naar nga dafa daan wax ne man nit bu ñuul laa africain laa xaddafi lépp xaddafi bëggoon Afrique bu sotti woon kon yéen ñi nekk di ma dénigré ñun ñëpp ñu nga ñibbi Afrique. li Kadhafi bëggoon Afrique du man maa leen koy wax xam ngeen ko dafa bëggoon Afrique nekk benn tali comme Italie ni ma nekkee nii itali su ma neexoon léegi bu du doon coronavirus ma ma dagg ñëw France dem Allemagne nangam ak nangam dafa bëggoon yoon bi ñu ubbi ñu ubbi ko. mais anamu ak projet yi Kadhafi bëggoon lépp mais ñu jël Kadhafi faagaagal ko rey Kadhafi yéen da ngeen a yaakaar ne français yi rek ak ak tubaab yi rek ñoo rey Kadhafi non Kadhafi dañ ko rey. dañu dajale ñoom dañu togg ba ba pare def li def li ñuy def ba pare jaarale ko ci ñun négro yi suñu président yi jaarale ko ci seen loxo ñoo ñu jàppale leen ñu rey xaddafi te du moom rek te du moom rek gis nga noonu mu amee ci xaddafi am ci lu Lumumba am ci yeneen président yi nga xam ne ils étaient l'homme fort de l'Afrique ñu jël leen ñu ñu tracé leen Afrique mooy ennemi Afrique te même africains yi ñoo ñoo rey africains yi tubaab dañuy dimbali tubaab yi rek yéen a ngi dégg wax ji boo moytuwul nag ci lii ma waxoon dinañ dee comme weñ parce que ñu ngi koy jaarale ci suñu dirigeant yi ñoo ñu ngeen di tiitaru ñu naan ay ay lan la ñu nu mu tudd sax nan la ko waa ji waxe scientifique di ma naan ay scientifique scientifique yooyu ak ak suñu dirigeant yi africain yi tubaab yi ñu ngi bu ñu bëggee rey ci ñooñu lañ koy jaarale ñu ñuy rey benn par benn ñu ñuy rey benn par benn sénégalais yi munuma wax lépp parce que damay bañ a gaaw fàtte dama tëdd nii rek nii di féexlu parce que mi ngi noonu da ngay tëdd di nelaw ak coronavirus bi doo mën a génn fenn de tout façon bàyyi leen xeebaate man loolu rek laa leen di ñaan bu leen bu leen xool làkku français man du ma français du ma française man je suis sénégalaise boo leen gisee sama ñuulaay bii nga xam ne man pure sénégalaise laa ba pare nag di séeréer man je suis fière ci lu ma doon man du ma française man su may wax français su ma juumee loolu du dara mais ça ne veut pas français làkk la comme wolof comme séeréer comme halpulaar hmm? français làkk la comme joolaa mais lan moo waral parce que nit ki du làkk français wala mu juum wax covid 19 te defalan naa leen vidéo ma leen di rectifier du man du man maa wax covid sama frère Assane Diagne moo ma ne bul dem di wax damay bañ ñu tëj sama page te Assane sama frère la bëgguma ñu tëj paasam ma ne ko waaw baax na bàyyi ma def covid 19 mais je sais que on dit pas covid 19 b ak i bi maa leen ko gën a xam maa leen ko gën a xam kon nag man li may wax deuxième chose bi may wax la Xaddafi bëggoon a def li Xaddafi bëggoon a def bari na ñu jël ko terrassé ko jaarale ko ci ay dirigeant ku ci mel ni ab Ablaye Wade ku ci mel ni Ablaye Wade ñu jaarale ko ñu jël ab ñu jël euh, ñu jël lom foor boobu jël ko rey ko la la Xaddafi bëggoon sama gaa yi Xaddafi dafa bëggoon gis nga euh, juif juif yi juif yow booy booy xëccoo réew juif laa wax te ñoom rek ñoo nekk si dëgg juif booy xëccoo réew yow yow yow ngay xëccoog moom nekk président moom xam nga la lay xëccoog yow média est-ce que yéen a dégg wax ji média gis nga nit ki boo ko buggee yàq wala président bu mu mënti doon wala buur bu mu mënti doom yow amal média rek danga koy daaneel léegi yéen ma ko gën a xam parce que comme yéen yéen xam lépp keneen kii moom xamul dara parce que mënul Covid 19 c'est ça. li xat dafi bëggoon moom mu def média ñu ñu am ñu am suñu suñu yéen a ma ko gën a xam ni France 24 doxee fi ma nekk fii ni Italie ni ni ni ni ni seen xaw ma raay uuna la tudd xaw ma loolu la bëggoon ñu am suñu média wu bopp mais ñun kan moo ñuy waxal ñun suñu bëggee génn sax suñu dirigeant yi candidat yeeg président yi fan la ñuy demee France 24 la ñuy dem bu dee ci anglais ñu dem BBC mais pour quelle raison ki la bëggaloon loolu nga jël ko rey ko te lan la dafay waxoon ci ci mémoire am bi muy bi mu doon génn àdduna dafa waxoon ne miir bii miir bi mooy moom boo leen ko tojee rek sama mbokk nit ñu ñuul ñi dee loolu la wax da ngeen di dem man maa ngi ko yore dama koy partagé chaque cinq jours wala un semaine gën naa ko part dinaa ko génnee su ma paree ci live bi ngeen dégluwaat ko bu baax parce que nit bu ñuul moom moom moom gëmul boppam ñun gëmuñu suñu bopp loolu moo tax li ñuy dal dee leen gëm seen bopp maa ngi doon jox exemple Assane Diagne mi ma ne ko tey jii man su ma doon def caq démb rek ci guddi ma ne ko tey jii su ma yow boo doon liggéey ngay def caq yu rafet wala mèche yu rafet wala saak yu rafet benn naar bu dendoog yow di defar caq comme yow ak tubaab bi gis nga man su ma ñëwee Assane Diagne du ma jënd ci yow ci naar bi laay jënd ndax lan ndax xeeb sa bopp leen bàyyi di xeeb seen bopp bàyyi leen di xeeb seen bopp parce que xeeb sa bopp sénégalais nag soo koy wax xeeb sa bopp day yaakaar ne xeeb sa bopp moom mooy ne nit ki da war a sangu ba set yore sa oto bu rafet man boo ma xeebee yow xeeb nga sama bopp Mariama Njaay mi comme Mariama Njaay mi sama sœur bi dugg Maria Mariam Njaay Mariam yow man soo ma xeebee xanaa xamoon na yow sa bopp nga xeeb Mariam Njaay soo ma xeebee yow sa bopp nga xeeb tey ji yow boo ma rombee naar di ma dóor wala tubaab di ma dóor wala nàngam nga ne dóor leen ko fekk yaa ngi lool sa bopp de. fii xamuloo mais yaa ngi parce que dóor boobu noonu naar bi di ma dóor wala tubaab bi bu ëllëgee yow dala dala ci da da yow la yow la ciy teg ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bii nag mooy gaa yi nga xam ne ñoo nekkoon yal nañ ko seetaan ngeen wàcc ci suuf bëgg naa ngeen wàcc ci suuf gis nga nit waroo rëy da nga war a wàcc ngeen wàcc ci suuf jéggalu seen raq man dama leen bëgg yéen sénégalais yi man dama bëgg sama xeet dama yërëm sama xeet bugguma ci sax insister li ñu rey si nit bu ñuul si si bi ñu reyee Xaddafi ngeen jéggal ma si jooy bi bugguma jooy mais sénégalais bàyyi leen di xeeb nit bàyyi leen bàyyi leen di xeeb nit bu la nit waxee ay làkk français man sama gat ci français man français yi ñoo ma jàppoon esclave français yi ñoo ma toroxal seen làkk man tiitaruwuma ko soo ma nee déggoo wolof ci lay mer yéen a ngi dégg soo ma nee déggoo xalpulaar ci lay mer soo ma nee déggoo séréer bi ma doon ci lay mer soo ma nee déggoo joolaa ci lay mer soo ma nee julaa ci lay mer mais doo ma ne déggoo espagnol lii yëpp suñu maam yi ñoo ñu ko teg ndax affaire esclave bi moo tax xale yi boo leen di wax sa duñ la gëm dañu xeeb seen bopp bay jël xeesal di ko xeesal aussi boobu tamit dinaa ci mës a def vidéo def ko si bàyyi leen di jël seen yaram yi di ko xeesal ay nit ñu rafet ngeen nit bu ñuul dafa rafet ñun du ñu dem mukk di bronzé wu da ngay gëm sa bopp essayé leen ngeen gëm seen bopp lii yëpp nag aussi ak suñu dirigeant yi suñu maam yi def nañu te dem bàyyi di wax naan suñu maam yi dañoo liggéey fu ñu liggéeyee ñooñu doon jaay naar yi affaire boobu di continuer ñu ñëw na boo gisee esclave maa ngi koy wax asan jaaj da ngeen dem aussi di jàng ji di jàng ji ay pour xam naar moo njëkk a jàpp nit bu ñuul esclave tubaab lu mu gis ci bon mi ko lu mu def ci lu bon mi ko gisee si da ngeen di dem ci histoire ci suuf ngeen xool ko du dëgg naar ñëw jàpp nit bu ñuul nit bu ñuul esclave tubaab ñëw jàpp nit bu ñuul esclave léegi yow sama moroomu nit bu ñuul bu juumee ci làkk bu nga xam rek ngeen commencé ko di ko dénigrer pour lan la loolu pour lan la loolu nañ leen gëm suñu bopp moom moo gën bu nit ki waxee nga li am solo ci wax ji nga jël ko lii ci amul solo nga sànni man noonu lay dundee sama yaay noon la ma yare mais ñuy tuuti suñu bopp mais comme la ma waxoon rek euh, message bi may lancé dama waxoon sax du ma yàgg message bi may lancé mooy ñi nga xam ne ñooy yanaamaar dimbali leen ma ñu jot ñu ñu ñu dégg sama sama sama sama sama vidéo bi parce que ki nekk Fongol foofu orient Sénégal oriental ki nekk Tamba ki nekk Nangam ki nekk l'est l'ouest am na ñu nga xamante nii ne yéen yéen yéen yéen chance bi ngeen di am bay déglu vidéo yi ñoom amuñu ko wala télévision lii du yegg si ñoom damay ñaan ay yanaamaar nga xamante nii ne yéen jot ngeen ma xaalis boobu ki Sall jot am na lu mu leen ci jox dimbali leen ma ñoom yaramaar ay ay dofu kër gi xaw nu mu tudd waa ndaw soosu rapport boobu sant sekk ñu invité woon ko ci ci kii bi. dem leen ci région yi ngeen sensibiliser suñu mbokku kaw-kaw yi parce que ñoom xamuñu amuñu accès ci réseaux sociaux yi ngir yàlla fi sabili laa na tas ku dégg français tane ma ci francais français làkkal français. ku nekk séeréer bi mën a làkk séeréer joolaa bi làkk joolaa pulaar bi làkk pulaar nangam ak nangam nañ ko tas ci Sénégal bi ak ci Afrique bi ñag yi ñoom ñi ngi def li leen war ñag yi ñi ngi nekk di def boobu ba léegi ay vidéo di dénoncer piqûre boobu bu ñëwee Afrique mooy ne dee nañu te ñi ko fay dugal ma waxaat leen ñi ko fay dugal du man du yéen ñii di commentaire ñi ko fay dugal mooy suñu dirigeant yi la ñuy àndal tubaab yi ñooy ànd ak suñu dirigeant yi ñu dugal ko fa ñu leen di piqûre benn par benn te kuñ ci piqûre xale buñ ci piqûre nag xamal ne dootoo amati doom bu keroog ngay dee loolu bu yeboo ngeen xam ko bu baax nag yéen a ngi dégg wax ji ngeen xam ko bu baax waaw yanaamaar ak yéen ñooñu yanaamaar yi nga xam ne yéen a jël xaalisu Macky Sall am na lu mu leen jox dugg leen ci région yi dem leen ci région yi ngeen sensibiliser nit ñi suñu mbokk kaw-kaw yi nga xam ne ñoom mënuñu dugg ci internet bi parce que amuñu ko bàyyi ñu leen ñuy dugg ci internet bi dem leen ngeen sensibiliser leen bu leen def vidéo rek yem ci da ngeen di dem waa kay Sénégal mooy complice te moom mooy nekk ji complice nag euh, Touba lii rek la ku ci mën dénoncé dénoncé leen ñun dañoo sonn dañoo war a bànneexu bala may dee ñu naan su ma waxee ne suñu dirigeant yi mais waaye dañu ñàkk fayda dañu ñàkk fayda 60 ans plus de 60 ans de indépendance douze bu baax sax amuñu ko douze bu baax sax amuñu ko ngeen di ma naan ñooñ dañoo muus may wax ngeen di ma naan ay waruma wax suñu mais dañoo ñàkk fayda maa ko wax suñu dirigeant yi dañoo ñàkk man maa ko wax ma ne man sama dañu yor sama xaalis Macky Sall ak ay Senghor ak Ablaye Wade sama alal la ñu yore man du ma ci remercier kenn du wu ma ci kenn sama alal man la ñu yore sama bakkan ñoom ñoo ko yore lu tax ma leen di remercier bu Macky Sall tabaxee kër dama ko war a remercier defuma ko dafa ma war a moom moom moom ma war a remercier moom. xaalis boobu mu defaree talem du bàyyam bàyyiwul ko ndeyam bàyyilu ko parce que moom baadoolo ab baadoola woon comme man kon fan la jëlee xaalis bi te ndeyam bàyyiwul du héritage mu am kon man sama xaalis la. sama contribution maanaam li may yéemee fii Sénégal Western Union di ci jël ay taxam moom lay dajale ak yow mii di ma bind di wax di ma dénigrer ñoom la ñuy dajale mu defal talibé kon pour lan ma ko pour pour quelle raison pour quelle raison man dama xam samay droit du dëgg léegi nag li nga xam ne moom moo ñuy rey ñu ngi koy jaarale ci loxo loxoy Macky sàll ak ministre yu ñàkk fayda yooyu ñu dugal nag feebar bi foofu noonu Sénégal ñu pikir xale yi ñii di dee ndànk-ndànk kon nag am leen ful la jóg leen ngeen donné dénoncé seen poche lañ fi nekke seen poche ay ay dañoo dañoo ijot man suñu dirigeant yi man diplôme yi ngeen yooyu ay ay ay ay nan lañ koy wax dee sax ñu naan ay ay lan lañu sax nan lañ koy waxee sax si français ay ay ay ay kii lañu daal ñu koy waxatee sax noonu noonu ñuy wax naan ay dafa jàng ba ba ba am xaw ma lan mais loolu yooyu loolu loolu yow yaa ngi yow yaa ngi jàng ba am ay diplôme nga comment sa fekk fait que yow 60 ans ah yow yow yow yow yow hôpital sax amuloo ko mais ñii du ñu du ñu rus sax hôpital bu baax sax amuñu amuloo ko lan la Mori Marie Le wax bët ki démb Marie Le lu mu wax. nee na dirigeant président wu africain bu fi feebar ñëw doo fi fajoo nee na 60 ans nga am ko ci indépendance nee na doy na pour nga am am hôpital bu baax. ñun suñu dirigeants yi ñoo bon ñoo ñàkk fayda ñoo bon ñoo sadik ñoo néeg ñoo égoïste ay dirigeants yu égoïste la ñu am yow xaalis bi ngay sàcc fi ngay xamee ne ñoom ay dof la ñu duñu ay intellectuel laa bëggoon a wax ñoom ay intellectuel la yow nga yow nga nekk yow te mënoo liggéeyal dara sa réew sa dëkk réew di dee ak xiif xale yi di jël bato bi di dee ci yoon bi ñu koy gis te ñu ngi koy gis ah te amul kenn nag xale yi di dee ci bato bi kenn xamul nu mu toll te du ci kenn nag moo jóg taxaw daal di rëccu ñaanal leen amul ba léegi ba fii may waxee yow xam ngeen ñaata ñoo dee ci ci Méditerranée bi xamoo leen ko de pourtant xamoo leen ko ak li ñu suul fii kenn xamul nu mu toll ak li dee ci géej géej yéenu naar beeg nangam saxra bi lépp ah te ñoom bu ñu feebaree fi ngay xamee ni ñii du ay nit suñu feebaree ñu jël seen ñu jël seen seen ay dëbës dem France faju fa mais quelle honte où sont les diplômes diplômes où sont loolu mooy intelligent loolu mooy intellectuel loolu du intellectuel loolu dof dëgg la dama doon laaj sama raq bu góor ci jamono yële passé ma ne ko waaw man dafa am lu ma jaaxal daal ci suñu ci suñu ci ci Sénégal Afrique ma ne ko ñoom dañuy jàng suñu njiit yi mais euh, mais ñoom jëriñun ñu dara daal seen jàng bi sama raq bu góor sama caatu yaay dafa ni ma jàng bi ñuy jàng fii loolu du dara mu ne dañuy jàngal pour ñu gën a dof moo ko wax de te wax bu dëggu nag la wax ñun suñu dirigeants yi dañ da da kenn respecté wu kenn respecté wu leen parce que dama mës a gis yow ñuy jàpp sa askan di ko rey ci fii ñaata sénégalais lañ fiy rey mës ngeen gis mës ngeen gis benn suñu benn ambassadeur lan la ambassadeur di di njariñ par exemple fii bu ñu waa léegi nag li may wax mooy dem leen euh, Sénégal ngeen rey fa benn benn italien bu tuuti wala benn français bu tuuti bu ndaw bu tuuti dooru juddu na ko docteur yi rey wala mu dee te xamuñu lan moo ko rey doo leen ko dolleeti de seen ambassadeur bi mooy jóg jël ay avocat Italie jël avocat te teg ko nag puus leen ne leen da ngeen koy teg ci yoon nañ wax leen ñu lan moo tax ñu rey ko mais ñun lan la ñun kaña ñun ñun kaña yi sax ñooñu ñu tane fii dañ fi rey Sénégal yi tous dara du mujjee fenn fenn la dul mujjee fenn la dul mujjee parce que ambassadeur bi si boppam nee nañ intellectuel mais moom xamul sax lan mooy ambassadeur moom xamu ko pour moom ambassadeur mooy mooy ne moom dafay ñëw toog fii pour nga soxla ko sax danga koy danga nga koy tagg quoi da ngay tagg ñun pour ñu soxla suñu autorité yi il faut ñu tagg leen mais yéen a sadik yéen ñàkk xam yow cër bi ñu leen jox ak cër bi leen yàlla jox yéen ko ñàkk xam xamoon leen yow ban cër la leen yàlla jox yéen ngeen di ma wax ay intellectuel man dama faale defoon naa fi vidéo di wax loolu man dama faale man nañ ma jox benn postu Sénégal benn postu ministère ngeen xam maa ci am fulla ak fayda duma leen sàcc du ma leen sàcc ba pare du ma ñàkkal sama bopp fayda ci tubaab yi si nga xamee ne suñu dirigeant yi ay lom sans cerveau la ñu maanaam ay nit la ñu yu nga xamante ni amuñu cerveau xam nga tubaab yi da ngay dégg léeg-léeg ñu ñuy xas benn xas ñu naan nit bu ñuul tubaab loolu la wax ma ma ko de tubaab moo ko wax ak naar nee na nit bu ñuul comme golo te loolu wax boobu dama toog ay ati at ça fait dix ans may dégg wax boobu ma dem di ko laajte man naa toog xalaatal sama bopp ma ne pourtant ñii lu mu lu ñu wax dëgg la parce que golo yàq rek la mën te ñun dañoo mën yàq ñun mënuñu defar wax bi nag métti na metti na mais dëggu aussi da nga koy nangu nit boo bëggee xam sa sikk da ngay nangu sa sikk pour loolu dañ pour pour pour lu ñaaw loolu dañ tant que nangu woo sa sikk rek doo mën a nekk nit doo defaru ñun amuñu dañu nekk nit ñu nga xam amuñu cerveau maa ko wax xoolal Afrique nu mu mel depuis xaw ma ñaata million ay siècle siècle ñu jàpp sa ay maam ñuy jàpp ñu jàpp sa ay ay maam ay jaam ba léegi jàppatuñu jaam xam nga bu njëkk ba jaam dóor la di la ngacc di la dóor noonu lañ de danañ dem di seet ay vidéo yi dem leen pour ngeen yeewu wake up Afrique wake up yeewu leen doo leen xaar ba yegg indi man man aw ma bag awma bag mais lu tuuti lu ma mën a liir damay dugg ci YouTube bi di liir di xool di jàngat di xool di yeewu sama cerveau bi bu leen yaakaar ne rek il faut nga toog am bag ngay door a yeewu ñi am bag a gën a dof intellectuel yooyu ñoo gën a dof parce que ñoom ñoo leen yoree depuis 60 ans te ñu ñun leen dara hôpital sax amoo leen ko ma ne hôpital sax amoo leen ko seen sëriñ si bu ñu bëggee faju France la ñuy dem faju fa ba dee fa seen intellectuel yooyu ngeen di wax suñu feebaree bëgg a faju du dëgg ñu ngay dem France wala ci beneen réew dem fajoo fa te pourtant am nañu xaalis zircon bi fan lañ koy waxee or bi fu ñu koy waxee jamaa bi fu ñu koy fu ñu koy waxee mais mais mais mais pot bii sax mënuñu ko defaral ñun Afrique lii lii xam nga yomb na lii duñ ko produire Afrique lii n'est-ce pas lépp emporté lépp c'est emporté dañu emporté lépp ñun produire ñu dara dara tous ba pare su may du may dee ngeen di ma wax ay ay inte kon kooku intellectuel la koo xamante ni ne xoolal dof ba suñu dirigeant yi dof da ngay sàcc sa kër nga dem yóbbu ko kër jàmbur loolu loolu kon dangeen may wax ne loolu ku wér la ku jàng de te ne dafa dajale ay diplôme nga sàcc sa kër dem yóbbu ko beneen kër nga sàcc Afrique Sénégal yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko France sàcc Burkina Faso nangam nangam yóbbu ko France ñu teg ci tuuti France fr tubaaba muus mu indi la ay problème du dëgg daal di jël na xaalis boobu nga dugaloon foofu mu teg ci loxoom mu teg ci loxoom xaalis boobu lañuy jël fexe ba guerre am ñu indi waat sa xaalis ne dañ lay jàppale mais nit bu ñuul yeewul waaye nit bu ñuul yeewul waaye léegi nag euh, mi ngi noonu petite vidéo dama waxoon petite vidéo mais fu mu nekk nii dama xaw a sonn bëgg a noppaliku euh, mais mais vidéo bi ma def nii pour euh, intellectuel yooyu nekk ci suuf di ma xas waaw pour ñoom la daal ba leen di xamal ne leen soo leen amoon ñett wala cinq yu mel ni comme man gis nga li nekk sama bopp bii soo leen amoon cinq fulla gi nekk sama bopp bi parce que suñu dirigeant yi dañu amuñu fulla fulla amuñu ko parce que koo xamante ne Macron bu ndaw bële mooy lay jëw yow di la conduire di la fu mu fu mu ko neex nag la lay conduire dama yàlla baal baalate ma ñuy mel ni caga xam nga caga moom dama yàlla baal baalate ma ngeen jéggal ma nag jigéen ñi sër ba day yomb waa Afrique comme caga la boobu def leen ko titre Afrique comme caga ku ñëw tas sëram naar bi ñëw nañu lekk ba doyal coloniser ñu seen làq ci seen lëpp tubaab bi ñëw nañu coloniser coloniser ñu ci seen làq ci seen culture ci seen lépp ba nit bu ñëw sa xamatul culture booy wax yenn culture yi sax nit ñi dañ naan ndax kii wér na fu mu nekk ne nag chinois yooyu ñëw gis nga bu ñu paree coronavirus bii su fekkee ab yàlla tukkiloolu àdduna bi di nga gis nag chinois yi ñëw di ñu jéem a jàngal seen làkk ñun daal ñooy xeet boo xam ne ñun du jàngal kenn daal mais ku ñëw daal jàngal ñu ay làqam ak ak culture mais ñun daal du ñu jàngal kenn du ñu jox nit turu yande du ñu jox nit turu ndogoy mais dinañ jël turu naar sëy na bu dinañ jël nangam ak nangam te boo ci naree wax dara nag ñu tegal la ci lu nga xamante ne lu yéeme la naan kii wér naag nangam mais fekk yéen yéen a dof soo leen bëggee gis dof dëgg dëgg dëgg da ngeen di dem ci suñu assemblée nationale yi ci intellectuel da ngeen dem ci fi ñu bind turu intellectuel ci ci ci mairie ngeen dem seet foofu noonu intellectuel boo gisee xamal ne dof la waaw kay mënuma wax lépp daal moo tax man ay live sax daf ay ay petite vidéo laay def léeg-léeg parce que da ngay wax ak xol daal da wax ak xol ba pare am na yenn sénégalais yi nga xam ne dinañ la comprendre mais am na ay dof dof dëgg nag yoo xamante nii ne dof dëgg yoo xamante ni dañuy ñëw xam nga ba kan moo kan moo dof mooy ki ñëw di la jàppe dof koo kooku moo gën a dof ñëpp moom képp ku ñëw rek moom ku mu gis rek mu yaakaar ne moo ko gën a muus booy wër dof rek jàppal kooku te boo ko bàyyee rek moo mën ne yow bàyyi nga dof dëgg bàyyi leen xeebaate xeebaate baaxul nit ki danga koy respecté même bu fekkee ne tekkiwul dara sax day yelwaan ci mbedd mi di buujoog di nangam respecté ko yemale ko mook ki sol garam bubu bi parce que wax naa leen fi léegi ci dubi live sol garam bubu ak sol pantalon ak ki muuru loolu du dara yàlla xolu nit lay xool loolu danga koy summi bàyyi ko fi ki sol pantalon bi ak ki bu ñu duggee ci biir néeg summee ko yaramu neen ñoom ñooy yem rek daal waaw léegi yal nañu yàlla defal jàmm ku ci nekk ku mën a def vidéo ndax séeréer nga nga ndax pulaar nga ndax nangam nangam nga ma defaale ci sax sama làkk man sama làkk séeréer bi ma doon joolaa yi nangam ku ci nekk nga def ku nekk ku nekk sa dëkk na jël vidéo yi di ko partager ngeen bañ di soxor aussi di partager daal du dëgg nit ki bu waxee man ñëpp laay partager. waa kay jërëjëf euh, Loum mu ngi noonu mu ngi noonu ñoo nekk ci commentaire ba di ma fa xas daal te liñ ma doon xasee mi ngi nii ñëw na li ma doon wax naan nañu moytu mi ngi noonu ñëw na. kon nag euh, dèjà nañu gore daal comme ni ma wax léegi bu ñu paree ñu jaajëfal ma te jéggalu ma daal ñu xam ne dof waxuloo ak ñoom daal waa te ñu ma ñu nañ ma dimbali nag ak seen intellectuel yooyu ñuy wax bëggatuma ko dégg sama yoon nekkul ci ñoo ñu di gàddu noonu seen saak sama yoon nekkul ci ñoom parce que ci man du ñu ay nit ñu tekki dara waaw lan laa bëggoon a wax sax waa képp ku mën a làq sa làq ku ma tane ci français ku ma tane ci nangam nangam joolaa séeréer manjaak nangam xalpulaar lépp wax leen ngeen wax seen sensibiliser surtout suñu mbokk yooyu nekk pour man nga xam ne kaw kaw laa dinaa bàyyi vocal ci sama mbokk kaw kaw yi sensibiliser leen nga xamante ni bu kenn dem ñàkku ji dama leen ko ñaan waa may leen ma tuuti nag ma làkk man sama làkk daal parce que dama bëgg man du ma doon waaw mbokkaa ci saafi ci ngo e mi mariama seck mariama ken seck mi kañiɗuɗi tu bo naanu nik saafi da fu kera vidéo ni ngoɗa mi kimɗa ngir koox mi mi kimɗa ngir koox kana tubaab ci ba ci nag ba saay-saay te dirigeant ci boo ba baax ɗi dirigeant ci boo ba baax ɗi naanu kerax vidéo ni ngoda fu nik saafi te fu nik OSR da fu kerax vidéo ni ngoda kan kat ñaqu ñaqu a ah. tubaab ci xay bay ay bi ñaq ba ñaq ba ñaqaaw euh, bopp ci suuf suuf si bo naanu kerax vidéo xoolal kii dinaan yar yaruwu leen yow moom duma la su ma paree naa la tontu si si commentaire yi waaw genre dof yi laay wax waa xaw ma jibril son la tudd xaw ma waaw mo kacin saafi ci ngo bo naanu kerof vidéo vidéo ni nga da waa partager a ah, kenn kat kat ñakku a ah, tubaab ci nag ba saay-saay bi préparé ay bi ñakk pour ba bàyya pour ba bàyya Sénégal ba bàyya Afrique mais bo naanu kere xada kan kat ñàkk ka parce que tubaab baax di waa keñ sama gaa yi nag maa ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di ne dama bëggoon def benn petite vidéo mi ngi noonu ma ñëw xaw fee yàgg daal mais ña nekkoon aussi ci commentaire ba du dëgg ci vidéo boobu ñi ma doon defendre yéen ñëpp rek boo leen déggee sama vidéo bi maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa ni ngeen ma doon défendre waaye a tax ba ba ba tàyyalu ma daal di leen sant di leen gërëm di leen ne moytu leen tubaab tubaab saay-saay la te suñu dirigeant yi baaxuñu waaw ay égoïste lañu ay nit ñu bon lañu ñoom ñoo ñu toroxal ñoom yal na leen yàlla toroxal ñoom ñëpp nag jërë ngeen jëf